ci suratul anbiya waxon nañ leen li tax ñu tuddé ko anbiya moy li gëna bëri si yonente yi seen tour ñew na ci sar wi moo tax ñu tuddé ko anbiya tay nak mu ngi melni ni ngi waji jéxal sar bi suñ borom wa haramun aji haram la alaa xaryatin ci dëkk mu namm ci waa dëkk ba ëxlëg naa dëkk boo xam ne ñun yàlla ñoo ko xalak annahum naka ñoom waa dëkk ba laa yar joona ñuy dellu ci dëkk ba xoolal foofu alxuraan lu yéeme la laagu bokk ci laagi saayit la li yàlla bëgg wax mooy su namee alag dëkk muy namm si waa dëkk su su leen namee alag ba alag leen dëkk boobu ñu alag ñoom dooñu dekkaat da dox ci biir dëkk ba déedéet hmm? déedéet loolu du xam mukk bu leen xale gi kay jeex na yoomal xiyaamati rek lañuy dekkaat waaye alag waa dëkk waa dëkk ba dekkaat da daagwaa ca dëkk ba da doxi seen activités yi suñu borom nee na loolu moom dafa xaraam mënul nekk maanaam mum te woon dafa nekk dafa terew hmm? moo tax mu ne wa xaraamun aji xaraam la ala xariyatin ci ñuñ dëkk xëlëg naaxaa dëkk boo xam ne ñun yàlla alag nañ ko mun na ma ci waa dëkk ba annahum naka ñoom waa dëkk buub laa yar joxoon ñuy dellu ci dëkk ba loolu du xam mu ne dellu ko doxam mukk xatta isa futti xat jëm bañ xubbeef yaa jooju yaa jooju wamaa jooju ak wamaa jooju wom ñoom yaa jooju yi ak maa jooju yi yan si loolu ñuy gaaw di wàcc min kulli xadd bi nu tukkee ci bépp montagne xeer xam nga ne yaa jooju wamaa jooju dañ ne dañ ñëw waaye mujjug jamono lañuy ñëw gannaaw bu masiixu dajaal ñëwee yonent yàlla saa ñëw rey masiixu dajaal gannaaw googu laay yaay jooju ñëw wamaa jooju seen dikk nag day tegtale ne fi nit nii maa àdduna jeex na léegi nag kon yàlla fi wékk wax ji li wax ne su ma bëggee alak dëkk dëkk boobu duñ dellu ca waa waa dëkk boobu duñ dellu ci dëkk ba la daago na leen neexee du xam mukk hatta isa futti hat yaa jooju wamaa jooju lu dul damaa hubbi yaa jooju wamaa jooju xam nga xaaye la mais li imtinaayi rujuim dafa bëgg wax ne dëkk daal bu ma leen xasa alak dootuñ dellu ci àdduna rek ndax yaa jooju maa jooju yomal mu yomal xiyaam la ñuy ñëw ah kon bu fekkee daf ne leen du ma leen delloo ci dëkk ba lu dul yaa jooju wamaa jooju ñëw te yaa jooju ak maa jooju mujj yomal xaal lu ñu ñëw kon mooy duñ dootuñ dellu def dëkk ba rek la bëgg wax dégg wax te yaa jooju maa jooju yaa jooju yu góor yi wamaa jooju mooy yu jigéen yi baat bi am na ñuy wax yaa jooju am na ñuy wax yëx jooju bi xam am na ñoo xam dañuy wax maa jooju am ñuy wax ne mëx jooju bi xam sa bu la neexee indi hams bi bu la neexee ñaa ko indi am na ñu ne ñii ay doomu aadama lañ aadama moo leen jur mu jug jamono nag la ñuy ñëw ci àdduna bu ñëwee ci àdduna day teg te ne àdduna bi jeex na seen dikk ci àdduna du dara dañuy ñëw rek pour yàq rek mufsidiina fil ard yàq rek lañuy ñuy def kon yàlla nee na bu ma alégee waa dëkk waa dëkk boobu dootuñ delluxaan mukk ci àdduna di zirkale loolu damaa ubbi yaa jooju ko maa jooju fam ko aj nag ku am xel dana xam ne kon waa dëkk bi bu leen yàlla alagee dootu ñëwaat ci àdduna mukk ndax yaa jooju ko maa jooju mujj jamono dañuy ñëw moo mu ne wa aji xaraam la alal xariyat yi ci ñooñ dëkk xalag naaxaa dëkk boo xam ne alag nañ ko ñun yàlla annahum naka ñoom waa dëkk boobu laa yar joona ñuy dellu ci dëkk ba montaane ata isaa futa jëm bu yaajooju yaa jooju ak maa ñoom yan si loolu ñuy wàcc min kulli xadd ci bépp montagne xeer yaa jooju nag bu dikkee waqa taraba jege na alwaxdu dig ba alxaqu bay aji sax moo yomal xeexam bu ñëwee rek yomal xeexam fi ne daanaka dikk na ndax mu jóg jamono ji euh, la ñuy dikki isaahiya naka moom lii mbir tey mbir saaqi sutun aji bu xeeku la ab saaru saarul lazina bëti gaa ñi nga xam ne kafaroo weddi ñi nga xam ne gëmuñ yàlla buñ demee ba gis yaa jooju maa jooju wàcc ci àdduna dangay gis ñu tiit lool jàq lool buqi seen bët ya xam ne bis bi ñu leen wax ñëw ñàkk si na bu ko defee yaa way naa ñu naan xoo nañ suñu mbugal ñu deexat ku naa nekk woon nañ fi xaflatin ci sàggane min xaasaa si bis bi te mooy yomal xiyaamati bal fi nekk sax ku naa nekkoon nañ zaalimiina di tooñ suñu bopp ci weddi bis bi te mooy yomal xiyaamati bu baa yooyu loolu ngaa dégg ñuy wax loolu jeex yàlla nee na innakum naka yéen xéeféer yi wama ak la xam ne tax bu doona yéen a ngi koy jaamu min dooni laay te du yàlla asabu jahannama mattum safara la antum yéen yéeféer yi waari doona way dugg ngeen laxaa ñeel safara ndax law kaane bu nekkoon xaawulaay gaa ñii ngeen di jaamu muy xërëm yi aalihatun di ay yàlla kon maa war a dooxaa duñ dugg safara ñoom xërëm yi ak yéen ñi leen di jaam kon kay duñ yàlla wa kullun si yéen ak ak euh, xërëm yi mooy yéen ñi jaamu xërëm yi ak xërëm yi ku mu si yéen xaali doona way sax dàkk la fi xaasa safara loom ñeel na yéeféer yi fi xaasa safara safirun ay xéjjét buñ leen la lakk woom ñoom fi xaasa safara laa yas moo na du ñu dégg dara lii nag bi mu amee dafa am benn waa ji ñuy wax ibnu si maxra mu ñëw si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko laaj aay bi noo ko yàlla daf ne innakum wa ma taxbuduuna min duunillah xasabut jahannam antum laha waaridun yàlla daf ne yéen ñi jaamu xërëm yi ak xërëm yépp safara ngeen jëm ñu ko laaj yonent bi yonent bi ko waaw waaw dëgg la yéen ñi jaamu xërëm yi ak xërëm yépp safara ngeen jëm bu ko defee ibnu simaxraa wax yonent bi ne ko yahuudi ñoom ñu ngi jaamu nasaraan nasaraani ñu ngi jaamu Iisaa ba noo mut laj ñu ngi jaamu malaaka ndax kon yahóor yi dañuy ànd ak xoseyru dugg safara nasaraan yi dañuy ànd ak xeesa dugg safara ba noo mut lañ ndax ñoom it dañuy ànd ak malaak yi dugg safara yonent bi ne ko déedé yahóor yi jaamuñu xoseyru seytaane lañuy ñuy jaamu nasaraan yi jaamuñu xeesa seytaane lañuy ñuy jaamu ba noo mut laj ñu malaaka yi seytaane lañuy ñuy jaamu c'est wax ji de moo tax mu ne ko innakum naka wa ma tax bu doon ak lépp lu ngeen di jaamu min doonillaahi te du yàlla xasabu jahannam mattum safara la antum yéen xéeféer yi waari doon way dugg ngeen laxaa ñeel safara law kaane bu nekkoon xaa ullaahi xërëm yi aalihatun di ay yàlla kon maa war a duuxaa duñ dugg safara ànd ak ñeleen doon jaamu wa kullun ku ci xéeféer yi ak xërëm yi xaali doona way sax dàkk-dàkk lañ fi aasi biir safara loxum ñeel ne leen fi aasi safara safiirun ay xëjjët waxum ñoom laa yas moona duñu dégg dara fi aasi safara ndax jiir jir ja fa nekk wax ju jeex comme que wax na ci éeféer yi ba éeféer jeex daay dikk si julli ñi suñu borom ne ni innal lazina naka gaañ nga xam ne sabaqat jiitu na lahum ñeel leen min naa si ñun yàlla alxusnaa lu rafet ulaaika gaay ñooñ mab xon doona ñu ñu sori lañ xan safara ñooñ moom du ñu dugg safara mooy julli ñi alxusnaa ñu ne mooy laa ilaha illallah ñi nga xam ne saxal nañ kalimatu laa ilaha illallah muhammadu rasulullah ñooñ ulaaika anha mab xoddoona ñooñu du ñu dugg safara mukk moo tax mu ne ina lesi ne nag gaañ xam ne sabaxat jiitu na lahum ñeel leen min naa si ñun yàlla alhusna baatu laa ilaha illallah muhammadu rasulullah ulaika gaañooñ map o doona ñu ñu sori lañ anaa ci safara ñooñ duñ dugg safara ci bokk ñooñ de laa yes moxoona du ñu dégg ñoom julli ñooñ xasi saa yëngutuk safara sax duñ ko dégg woom ñoom jullit ñooñu fii maa ci lépp loo xam ne istaha dana ko foytoo an fu suum seen bakkan xaali doona way sax dàkk leen fa maanaam lépp luñ bëgg rek ca na yàlla da leen ko jox ñooñu ñooy jullit ñi yàlla nañ ci bokk jullit ñooñu laa yéex si nuhum du leen tiital mukk alfaçon tiitaange ga al akbaru gay aji màgg keroog yoomal xiyaamati julli ñu tiit de yéeféer yi moom dañ tiit bukk seen bët yi di wax naa ne yaa woy la naa innaa kunna zalimin waaye julli ñi moom duñ ci bokk duñu tiit mukk keroog yoomal xiyaamati keroog yoomal xiyaamati bu julli ñi dekkee bayakoo seen baamel yi wata la wata laqaahum dana dajeeg ñoom watata laqaahum dana dajeeg ñoom malaayikatu malaayika yi naa leen xaasaa bis bii yow mu ku mooy seen bis ba àllasi bis ba nga xam ne kuntum nekkoon ngeen yéen jullit ñi tuuxa doonu ñu leen koy digg bis bii la de ñu ne jullit ñi buñ dekkee seen baamel yi malaaka dañ leen a kattandoo da wax naan bis bii de moom lañ leen diggoon ba ngeen nekkee ca xaduna waaye bis bi ñu doon dig nag yegsi nañ yegsi na waaye nag jàmm rek laay do si yéen du ngeen am benn problème loolu la ñuy wax jullit ñi yàlla ne na yoomal xiyaam buy ñëw suñu borom nañ dañ leem asamaani juróom-ñaar leem suufi juróom-ñaar léegi nag mu koy missaal comme ki nga xamante ni jël nga jël na fooy jël big jël fooy jël big bindi bi nga bindee si fooy ba pare ni ngay jëlee fooy bi leem ko dugal sa poos wala nga leem ko teg ko fu la neex loolu la yàlla misaal ne ëllëg yoomal xiyaamati noonu la ñuy def asamaan yi juróom-ñaar ak suuf juróom-ñaar noonu lañu koy leemee waaye nag mooy mooy que tey sijil mais sijil bi am na ñeneen ñuy wax leneen ñoo xam ne ne neen sijil turu malaaka la moo tax boo koy firi da wax yow mooy bis ba nga xam ne nat wii dañ leem ñun yàlla asama asamaani juróom-ñaar waaye nag ak suuf yi juróom-ñaar waaye tudd ko dañ ko lem ka tëyi si jil comme leemuk téere lil kitaabi ñeel am mbindi ni ngay bindee téere leem ko noon dañuy leeme asamaani juróom-ñaar ak suufi juróom-ñaar kooku déggin la ci wala nga ne yooma bis la boo xam ne nat bii dañ leem asama asamaani juróom-ñaar ka tëyi si jil comme leem ak malaaka mi nga xam ne moom la ñuy wax sijil lil kitaab ñeel am mbindi malaaka mi ñuy wax sijil téere jëf yi nga xam ne si lañ bind jëfi jaam yi nim koy jëlee leem ko téye ko noonu lañuy ñuy leeme asamaan juróom-ñaar ak suuf juróom-ñaar téye ko ñaari dégg yooyu moo am ci aaya boobu dégg nga yàlla ne kamaa ba dax naa nit ku ñu sosee awala xalqin njëlbinu bindi nueeduhoo noonu lañ koy dellooxee yàlla doo xoon dara mu def la ngay dara bu lay dekkali noonu rek la lay dekkale moo tax fekkoon ne am na lu yomb si yàlla dañuy dekkal moo gën a yomb si yàlla bindi waaye yàlla amul lu yomb ci moom amul lu jafe si moom lépp xem ci moom mais na yéefir ñoom dañoo wéet di dekki na dekkaamo dekki na waxa dan dig la alay naa boo xam ne ñun yàlla ñoo ko warlu na dañ ko def képp koo xam ne bind nañ la dañ la dekkal innaa naka ñun yàlla ku naa nekk nañ faal yi na di jëf lool maanaam képp koo xam ne bind nañ la moo xam loo mën a do ëllëg yoomal xaamate dañ la dekkal nga nekk la nga nekkoon mais eh? dekki moom bariwut mu gëm dangay gis koo xam ne sax gëm-gëmam dëgërut day xaw a mel ni ku wéddi di fekk ku sax julli la ndax nit ku dee dem ba nekk yax yu funax yàpp wa seey lépp seey ñu ne dañ ko dekkalaat mu mel na meloon wax dëgg boo waxee nit dana ko jaaxal gëm ko it yombut waaye nag suñ borom mën na ko ndax suñu borom tëliwul dara ni ngi mel ni rek mooy nga arrêté dara loo xamante ni ka ko defoon dundutut dem na ba génn aduna nga xëy benn bis rek génne benn image ñu ne diw sàngam mu ngi nii xam nga loolu fi ni mu ngi am te ki koy def nit la kon nag suñu borom bu ne mën na koy def rek war nañu nangu ne suñu borom mën na ko def mu ne kamaa ba naa comme ni ku ñu commencé. awwala xalqin njël bi nu bind nooee doxoo noonu lañ koy dellooyee wax dan mu nekk dikk xalay naa si ñun yàlla naa nak ñun yàlla ku naa nekk nañ faaxi nii na ji jëf loolu loolu jeex suñu borom ne wala xat ci dëgg-dëgg kattam naa ñun yàlla ñoo faratal fi subóori ci téere yi mooy téere yu njëkk yi moom la wax subóor jamu subóor ñoo faratal si téere yooyu ne waaye nag min ba di zikri gannaaw buñ faratalee si alquran ba pare lañ faratal si téere yooyu ne annal arda nag suuf si yari suhaa dana ko donnaloo moom yàlla yari suhaa dana ko donn xebaadi sama jaam yi man yàlla asaali xoona jaam yu baax te ci ndax loolu bu ñu ko waxee du questionné suuf day dem ba jamono boo xam ne jaam yàlla rek ñoom moom suuf si déedéet mais boo xoolee commencement wu islam ñi nga xam ne baaxoo nañ gëm yàlla lool xam ne jamono ne si place man fay wane si diina sax yombul boo yunant boo xootee mën a am foo amee espace pour xoote sax yombul mais dem nañ ba sa kaam léegi yaatu na lool fu nekk islaam yegg na fu nekk woote bi yonent bi yegg na mag ñi doon xoote ñu leen di bun a xataat fu mel ni Sénégal gi yëpp fu nekk seen xoote yegg na hmm? kon xéebéer lañu doon xeex yàlla mujj na ndax saa yàlla moo mu ne wala xat ci dëgg-dëgg kattan naa farataal na ñun yàlla fi su bóori ci téere yi min bax di zikri ci gannaaw alquran lan lañ faratal mooy anal àdduna ko suuf si yarisuhaa dana ko doonu ibaadi sama jaam yi man yàlla assaalihuun jaam yi nga xam ne dañoo baax tan nañu si fi haasa nekk na ci alquraan ji la balaaxan ak jotal alquran dafa jotal inna nekk na ci alquran ji la ak jotal li xaw mi ñeexel nit ñi nga xam ne abidiina way jaamu suñ borom lañ alquran jotoon na de alquran wax na lu njëkk wax na lu mucc wax na lu ñëw wax na lu ñëw ko kay koy kon kon kon jotal na ndax su fekkoon alquran dafa wax lu njëkk te waxul lu mujj dañuy wax ne kon alquran am na lu mu wax waaye am na lu mu fekkoon dafa wax li am rek te waxul li amagut dañuy wax ne alquran am na lu mu wax waaye am na lu mu waxagut mais alquran wax na li njëkk wax na li mujj wax na li am wax na li amagut yowmal qiyaam dara amagut fa mais lépp lu fa war a xew ëllëg alquran waxal wax na ko kon waxal nañu loo xam ne ñëwagut xaruna bii ñu ne ñëw na lépp lu fi ne alquran wax nañu ko te teg nañu suñ bët kon jotal na xeetee njëkk la doxoon ca xeet yooyu ak la doxoon si yonent yooyu ñun xamuñ ci woon dara mënuñ ci woon leeral dara mais alquran farafàncal nañu yonent bu nekk noo tudd ak fa nga dëkk ak ñañ la yónni woon ak ñañ la yónni woon lu ñu la wax loolu kon lu paase la mais alquran moo ñu ko nekk alxuraan jotal na li mu war a indi si julli indi na ko li mu war a indi si xoor indi na ko li mu war a indi si xaj indi na ko li mu war a indi si tawhid tamit indi na ko li mu war a indi si digle lu baax ak tere lu bon indi na ko kon alxuraan dara wàññeeku lépp a ngi ci ndax téere boo gis mënta waxee mukk ni alxuraan waxee dangay wax lu njëkk mais doo mën a wax lu mujj wax li am wala doo mën a wax li am ko mais alquran dafa wax li njëkk wax li mujj wax li am wax lu amu ko waxal nañu seen mbiri diine yépp ni ñu koy defee kon inna fi haasa la balaax la balaax nekk na ci alquran ji la balaaxan ak jotal li xaw mi ñeen nit ñi nga xam ne aabi diine waaye jaamu seen borom la jeex wa ma arsalnaaka yónniwuma la yow sidina muhammad ilaa rahmatan ndare ngay yërmane lil aalamin ñeel mi ni fi yonente da ko yónni pour mu nekk nëbbi yu raxma moo tax boo demee ci turam yi danga gis nëbbi yu raxma yàlla da ko yónni pour mu yërëm xeet bi xeet njëkk ya yàlla dana leen naan alak te xànd ak lim la leen alak seen yonent bi mu daan dund jamono yooyu mais sidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xeetam mosoo fi gis xeeti mbugal yi ñu doon mbugal yu njëkk ñu leen koy mbugal kon yonent yi yàlla la mosooy gisit koo xam ne yonent bi jekku na la jekkali la fatu màgg bi mu jàppee Quraysh daf leen wax isabo wa antum tulaqa daf leen jéggal ñu dem kooku loolu yërmande la ba tax wamaa arsalnaaka yónniwuma la illaa rahmatan dara nga nekk yërmande li leen aalamiina ñeexel mbindeefi aalamiina nag buñ ko waxee kenn génnut malaaka ngi si nit a ngi si jinne ngi si lépp lu yàlla bind mu kon lépp lu yàlla bindi yàlla dafa yónni sayidna Muhammad pour Seydina Muhammad nekk yërmaane ci jëmm jooju xul waxal yow Muhammad innama dumu lurul yuuxaa waxu yóof na illay ya ci man lan lañ wax yu ci man mooy annama ilaahukum naka seen boroom ilaahun boroom la waahidun ba da benn yàlla kenn la ñu fi doon xootee ñu fi yàlla boo xoolee comme jamonoy yonent yàlla Moussa Firawna na doon xootee yàlla kenn gisul kon yàlla kenn la du ñaar fan antum ndax yéen mbindeef yi muslimoon a way xamatu ngeen ci gëm yàlla bi max naa amatu leen waay maanaam istifhaam gi bi max naa amar la dafa bëgg wax ne waaye gëm leen wala antum muslimoon maanaam antum ndax yéen muslimoon a waaye gëm ngeen bi max naa gëm leen yàlla xam ne yàlla kenn la du ñaar ndax law kaana fiihima alihatun ilallah la fasadata asamaani juróom-ñaar ak suufi juróom-ñaar bu fi ñaar yàlla newoon kon asamaani juróom-ñaar ak suufi juróom-ñaar yàqu nañ mais benn yàlla rek moo fi nekk ilaahun waaye fa hal antum muslimun ndax yéen muslimoon way gëm ngeen bi ma wax naa gëm leen waay loolu loolu la wax yàlla wax yonent bi na ko dama la wax yu te li ma la wax yow mooy nga wax ne man yàlla kenn laa awma ñaareel comme que kenn laa awma ñaareel ni ngeen ma gëm fa in tawalaw bu ñu wanee gannaaw nag fekkee da leen wax lii ñu wane gannaaw danga nga wax nit ñi lii ñu wane gannaaw gëmuñ ah fa xul waxal yow Seydina Muhammad azantukum maa ngi leen di xamal yéen doomu aadama yi xam-xam boo xam ne xalaa sawaayin mbir moom ñoo ci xemoo xoolal fii lu garaaw aay bi maanaam yonent bi dafa yàlla da ko wax ne ko su fekkee wax nga nit ñi ne leen yàlla kenn la gëm leen ko topp ko jaamu leen ko ñoom ñu bañ boobaa déclaré leen déclaré leen xare xare bi nga leen a déclaré nag yéen a xemoo ci xam-xam ba maanaam xamoo kañ lay dox ndax boo xoolee yonent bi dund na lu yàgg mënta xare ndax amul ndigal ci xare ah mais mu gi la ko yàlla may ndigal ci xare kon fa qul aasantukum maa ngi leen xamal ci xare na naa xareeg yéen bu ngeen gëmut waaye xam-xam bi ma leen xamal nag xanaa sawaay ñoo cee moo xamaguma kañ la est-ce que dégg nga ko loolu lay wax way in adri xaw ma mën yonent bi wala déet may xam mën yonent bi aqribun ndax aji jege la maanaam mbugal mi leen yàlla war a mbugal ndax dafa jege am wala baet dafa sori xaw xaw ma ci dara waaye nag xam naa ne moom bu ngeen gëmul moom yàlla dana leen mbugal mbugal mi nag xaw ma day ñëw léegi xaw day eh, eh, ñëw ca kanam ak aduna te mooy ñu rey la ci xare wala muy mbugalam àllaaxira mooy nga dem safara xaw ma ban la ci waaye bu ngeen gëmul yàlla moom benn dana ci am mu ne mu adri déet may xam ak xëribu ndax aji jege la moom mbugal mi am du wala aji sori la maa mbugal ma nga xam ne tuuxa doona ñu ngi leen koy tëkkoo mbugal mi leen di yàlla tëkkoo xaw ma jege si na xaw ma sori na waaye lu wetti wóor bu ngeen gëmul moom mbugal mi moom dana wàcc moo tax kilifa moom loo ko doddoo wax dëgg yàlla loo xamu dana xaw si naa maamit ba sallallahu alayhi boo xoolee lu ko yéeféer yi gëmadi gëmadi gëmadi gëmadi mu dul leen imposé di wax loo xam ne xamul ci dara lu mu rek laay wax lu mu xamul du ci wax nañ ko yokk loo dara ci alquran mënuñ ko wàññi dara ci alquran mënuñ koy wax loolu it loo xam ne du noonu pour pour ñu gëm dëgg rek laay wax inoo naka moom yàlla yax la mu xam ne jaxra loo xam ne dañ koo biral mooy li wax ci kaw minel xawli tukkee ci wax bépp wax joo xam ne mbindeef wax na ko wax ko ca kaw yàlla xam na ko ah waaw ñu ne kon de xam-xam boobu yàlla am na kay ñu ci xem ak ndax fi ne nii bu nit toogoon wax ca kaw yàlla xam na ko waaye may ne li mu xam naa nag yàlla moo moo moo la ko gën a xam ndax wax ji nga dégg nit wax ko ca kaw yàlla xam na ko yow xam nga ko waaye yow xamoon ndax dëgg la wala du dëgg mais yàlla moom xam ne ndax wax jooju dëgg la wala du dëgg moo tax mu ne innoo yaxlamul jaxra minal qawl wa yax la mu xam ne moom yàlla maa takk muuna li ngeen di nëpp loolu nag moom kon xam-xam boobu moom a ah, moom moo ko jagoo yaa yàlla lépp loo xam ne dana dañ ko feeñal xam na ko mais xam na lu ñuy nëbb hmm? lépp loo xam ne danga ko nëbb maanaam danga koo wax si suuf yàlla xam na ko wala nga jëf ko nëbb ko yàlla xam na ko bu ko nit ñi xamut yàlla xam kon yàlla ko dara lépp la xam rek la bëgg wax wa in adri déet may xam man yonent bi laxaloo xëy na moom li ñu leen di tëkkoo xëy na finnatan mu nekk finna maanaam li leen yàlla tëkkoo xaw ma ndax finna la leen jural ndax daay ñëw nekk finna si yéen maanaam mu wàccee mbugal si yéen muy nekk finna xaw ma ndax finna la leen jural xaw ma wa mataawoon xawma yobul yóbbal la ilaahi leen jëm ba jamono xawma ndax fin lay dox xawma ndax dalena leen ngeen dund ba jamono juko sop mu sok len koy tek xawma ci dara waye lu li wete wo dal moy ngeen gëmul mom bëggal mi la ñëw lol ja yalla ko qul waxal yow sayidina Muhammad rabbi yow so borom bi maxna ya rabbi mo fi nekkon Arfun nit daay ga lañ xasaf mu des munada moo tax wa kat ba waxon leena wa hasfu ya joosu fi ka qawlihim rabbi istajib du'ai bi maax ya rabbi mo fi nekkoon cha mu lahatu ga xalaat dang de moo tax mu ne qul sayidina muhammad rabbi bi ya rabbi moo alquran li tax mu jafee firi mooy dafa am ay taqdir ay nattale am na si yoo xam ne am na taqdim mooy loo xam ne dañ ko waroon a mujjee jiital ko xam na taqiir mooy loo xam ne dañ ko mujj waroon a euh, jiital mujjee ko hmm? alxuraan am na loolu taqdim mooy loo xam ne dañ ko waroon a jiital mujjee ko wala taqiir loo xam ne dañ ko mos waroon a yéexe jiital ko am na loo xam ne dañ ko asaf kon rëbb bi bi mu wax naa yaa rabbi boykat bu ne waasu yaa ya joosu fi nidaa'i ka qawlihim rabbi istajib du'aa'i bi mu wax naa yaa rabbi moo fi ne ko kon kul waxal yow sidna Muhammad rabbi yow sama borom ihkum na nga àtte bi la xaqi ci xàtteb dëgg sama diggante ak diggante xéeféer yi waaw yàlla àtt na si ñoom àttab dëgg keroog badar keroog keroog xare la fa xew ah? ñu rey si ñoom fukk jàpp si ñoom juróom keroog la dëgg feeñ ci réer keroog keroog la nit ñi xam ne jullit ñi ñoo nekk ci dëgg yéeféer ñoo nekk ci fen kéro xam kéro kéro lañ xam ne sidina Muhammad sallallahu alayhi Wasallam. yalla ko yoni kéro Badar lañ xam ki gëm yalla gëm gu wér a kak kak kak ak ki nga xam ne day gëm waaye gëm gi wéru kum bil xaq ci xare àttal sama digganteeg ñoom ci xàttab dëgg ci xare keroog la lépp leer keroog lañ xam ne diini islaam moo nekk ci dëgg diini xéeféer moo nekk ci fen keroog lañ ko xam ah? keroog lañ xam ne saa ñoo nekk ci dëgg xéeféer yi ñoo nekk ci fen keroog li alquran wax li yëxalaka man xalaak xan bayinatin wa yuux yi man xay xan bayinatin keroog la leer keroog ku gëm yàlla keroog lañ ko xam ku gëm ku wéddi yàlla it keroog lañ ko xam mais nit ñi doo leen bàyyi rek nu ñu gëm nañ nga bàyyi leen ci ni nekkee noonu foog nga indi benn affaire boo xam ne keroog keroog lay leer ne diw sàngam moom gëm na gëm gu dëgër dim sàngam nag moom gëmul moom saa lu tax nit ñi xam ne gëm nañ Seydina Muhammad gëm nañ alquran gëm nañ yàlla mooy xare bu métti boobu kooku ko xamul gëm-gëm doo mën a xareb xare bu méttee na nga xam ne sax danga gis koo xam ne danga gëm yàlla rey koo xam ne yéefar la te yéen a bokk ndey bokk baay wala nga rey koo xam ne sax bàyyi la si yow wala nga rey koo xam ne mbokk la si yow kon loolu loolu loolu leeral ngëm la rek moo tax a ne xul waxal rëbbi yow sama borom ikum bil xaq da nga xàtte sama diggante ak diggante yéefar ci xàtte dëgg ñu xam ne man maa ne ci dëgg ñoom ñoo nekk ci fen te yàlla xàtti na ko ci xar yu bari sax ak si firnde yu bari warabu naa suñu borom arrahman mooy yàlla mi nga xam ne mooy yéreem ci yàlla mustahanun ku ñu dimbalikoo la xalaamaa ci lépp loo xam ne te siifoona yéen a koy melal yéen xéeféer yi te du dëgg ñun ci yàlla la ñuy dimbali ko yàlla mi nga xam ne mooy yërëme mu mel ni loolu lañu amoon si duñu tafsir wa axiru daxwaana an alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu